ki la jàpp ngay mën a bàyyi waaye ki la jàpp kay loo ci mën ah ki jàpp loo ci mën ñun suñu kilifa yéen jàpp moo tax am lu ji bexe xam nu ko sama tuloon de waxee ci de am am na nu mu ko daan waxee naka laat si أعرض عنا والله إنا إذا منا والله لو أردناك جعلنا والله كل ما فيك يريدنا والله النقوة شيخ دان نوخني تالي بدوما بعيد من ما يبعيد هل آه. لأنك دوخ كنا يلا بوم باي ela bunda bem muco